Brave Jambar. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Jambari, aimer et partager. Soyez informés de toute l'info en continu, en découvrant toute l'actualité sur les Jambars. Jambari. Surveillance et protection. La chaîne qui plonge dans l'univers des forces de défense et de sécurité. des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, en tant que conseil général de corps aérien Biram Diop egsi na fii ci ministère des forces armées mu nekk bërëb boo xamante ne xam na ko bu baax a baax moom bi mu egsee nag di daal di tàmbali di joxe orientation yi nga xamante ne war na ci taxaw bu baax a baax. ci biir ministère des forces armées nga xam ni dafa am ay bànqaas bànqaas yëpp dinañ joxante loxo liggéey ba nga xam ni dinañ am performance bu baax waaw parce que liggéey bi da nga ci war a am performance. am ci aussi efficacité waaw mooy objectif yi nga xam ni moom lañ la jox nga atteindre ci le maximum loolu mooy efficacité waaw dinañ ci wut aussi efficience efficience mooy nga am résultat yi gën a baax voilà ak ressources yi gën a limité waaw yëpp ñett yooyu yëpp dafa di loo xam ni incha allah dinañ ci góorgóorlu ministre bu yor wàllu force armées ak équipe bi nga xamante ne moom lay liggéeyal nee nañu dinañu fexe ba gën a lëkkaloo lii di force de défense et de sécurité maanaam taxawaay bi nga xamante ne police gendarmerie armée wala yeneen force yi war nañ ko taxaw ngir mën a yokk kaaraange bi fii ci Sénégal. waa force armées ak yeneen banqaas yi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy liggéey ci affaire sécurité dañu war a joxante loxo muy police muy douane. muy eaux et forêt dañu war a joxante loxo pour ñu jël de manière globale la sécurité de notre pays waaw vraiment loolu tamit lu ñu ñor la te bu neexee yàlla dinañ ci tox ay tànk pour que loolu doon une réalité. jëm ci wàllu jàmm ji ak kaaraange fii ci Afrique de l'Ouest moom nee na dina ko def benn priorité bu mag a mag di fàttali tamit ni nee na Sénégal dina continuer toujours di def liggéey bi nga xamante ne mu ngi koy def ci wàllu jàmm ji surtout ci lu jëm ci Nations Unies. te sécurité Sénégal moom mënula am garantie su fekkee dëkk yu ko wër amuñu sécurité kon tamit dañoo war a liggéey ak dëkk yooyu pour coordonner li ñuy def waaw fu ñu mën a collaborer ñu collaborer fa fu ñu mën a coopérer ñu coopérer fa. pour garantir li tubaab di wax suñu sécurité collective. Sénégal aussi dafa am devoir contribuer ci renforcement paix ak stabilité au niveau international. ni ngeen ko xamee Sénégal ba mu amee indépendance ba léegi day yónnee ay policiers ay gendarmes ay militaires ci théâtre yu ne loolu tamit dinañ góor góorlu continuer di ko doxal. moom général de corps aérien Biram Diop jaajëfal na bu baax ba ki nga xamante ne mooy maître Omar Youm mi nga xamante ne moom moo fi nekkoon ci ministère bi moom maître Omar Youm dellusiwaat tamit di wax bu baax ba taxawaay bi nga xamante ne amoon na ko fii waaye tamit gëdd bi nga xamante ne jox na ko ñi nga xamante ne ñooy waa armée. mais bi ma ñëwee fii nag dama leen gën a admirer dama leen gën a jox considération parce que d'abord dama gis seen organisation gis seen discipline gis seen compétence. loolu wax dëgg war nañ ko gën a bàyyi xel gën leen a jox bàyyi xel ñoom ci seen bopp maa ngi leen di remercier bu baax nga xam ne ñoom laa àndaloon ci collaboration bi euh, ci liggéey bi ñun ñëpp ñu ànd ci di def liggéey bu am solo euh, wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm di jeexal nag ci félicité sunu frère Birame Diop la général Birame Diop bi nga xam ne moom la ñu teg tey ci bopp ministère des forces armées damay dem parce ak xel bu dal parce que xam naa ne ki ñu jox forces armées ku ko xam la ku xam secteur bi la. mu ngi dem di yaakaar tamit liggéey bi nga xamante ne def na ko fi nekk na liggéey bu am solo ndax doolel na bu baax ba lii di.